Eh, cantan ngërëm ñeel na leen yéen ñi safoo site internet bi dañ koy door rek mandataire ki nga xamante ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye jox fichier électoral am niki jii mu nekk fichier boo xamante ne rek ñaari version la numérique ak papier ginnaaw rek boo ko direction générale des élections joxe yooyu les fichiers nag moom mi nga xamante moom mooy mandataire am bi daal dinay annoncé nag kii di Bassirou Diomaye Faye ak Amadou Ba daal dinañu postuler mbir mu nu mel ci seen page Facebook ñu jot fichier bi ci version papier ba noppi rek daal di koy jot ci clé USB Amadou Ba daal dinay publier ci ab vidéo jaarale ko ci xarala yu yees di annoncer nouvelle bu neex bi nga xamante ne rek daal dina bu baax que ne nag boobule question fichier électoral nag jàll nañ ko waaye nag xaarandi woon nañ ko lu yàgg sax pour ñu am ko jamono ji ñu bëri ci Sénégalais yi rek yàkkamti woon nañ jot boobule fichier électoral ngir mën a bokk nag ngir mën a wàcc ci langum politique bi naam sax ñu ngay woowee seen xeex niki tey jii rek yema 2024 kii di Amadou Ba da dinay jot fichier électoral bu Bassirou Diomaye Faye waaye nag ci loxoy responsable direction générale euh, des élections mi ngi ko fësal ci ab vidéo moom Amadou Ba nag ma ngay wane rek euh, carton bi nga xamante ne rek daal dinañ ko koy jox mu am fichier électro yi waaye nag ba noppi rek reçu intégral bi nga xamante ne euh, jox nañ ko ko ak ak format électronique boo xamante ci clé USB la daal di nekk mu nekk ab nouvelle boo xamante ne rek patriote yi daal di nañ koy am jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification don't get on my channel and